alhamdulillahi rabbil alamin ça bien passé ça s'est très bien même passé alhamdulillahi rabbil alamin euh, li tax ma la def vidéo bi nag lenn la rek la mooy garde corps yi Sonko yi nga xamante ne jàpp nañu nañu leen xeetu provocation ba nekk nañ def nen ka xeetu provocation ba nekk def nen ka ngir jéem am leen teg si derab Ousmane Sonko mais comme li ma leen wax rek waxoon na ma leen ko dama leen kaa waxaat gis ngeen jaam baa xamante ne ñu ngi kaa pexeel jaam xamante ne ñu kaa pexeel ba yàlla àndul si pexe moomu du sotti surtout nag ba nekkee pexe maa xam ne ay caaxaan la jëkk jéem a sosol la xamante ne defu ko audition bi waron na am ba yagga ba yagga yagga yagga yagga waye di ko téye di ko traîner la ëlbati la la aw parce que xamne ne dossier bi c'est vide ma delu si euh, euh, garde corps yi nga xamante ñom lañu c'est si problème ci ki ñin wax ne dañ leen ba fekk kéne lolo tax ñu jappaleen lan motax japp ñu leen ci jour biñ ko défé lan motax japp ñu leen ci jour biñ ko défé pourquoi ñu xaar bu audition bi tay ñu profité jàpp leen lii yëpp xeetu provocation la li yépp xeetu provocation la te nervi yi nga xamante ne ñoo àndoon ak yeen ba légui ne ñu ngi libre loolu nag ñoo mérité ñu jàpp leen ba fekkee ne dañ nekk ci pays baa xamante ni justice bi jaar na yoon ñu bàyyi leen ñu la traîner du n'importe quoi kenn xamul lii lan la sonk nag gën nañ kaa yokka promotion gën nañ kaa defal promotion dañ nañ ka defar promotion si audition tay bi la xalat jëm nañ ka di ay gardu corps yoo xam ne ah euh, euh, euh, defuñu lu du seen a liggéey nan la nit la rombee nga di ka saga wala nga jéem a tànt leneen laa ne mais ça ne passe pas jox leen ñu cër ngir yalla li day jeex ngor day jeex.